ndam moom ndam la rek waaw ah, donc di ñaan yàlla nag ah xale bi sama doom tey jëlal ma revanche loolu daal laay ñaan yàlla tey mais tey ndax su bëggee daan Ibrahima Ndione daa war a ñëw bëre ak moom daa war a ñëw xeex ak non ñaar yëpp dina am tey dama ne mbër mu ndaw la ak mbër mu mag te fii du mbapat mbapat la mbapat amul xeex amul kurpeñ mais fii làmb la dóorante la jàppante bëre la te ñaar yëpp préparé nañ ko ñaar yëpp préparé nañ ko te ci kanam incha allah gis ne ñaar yëpp nañ ko ñaan yàlla comme ni ma koy wax rek ndam rek laay ñaan yàlla. mais tey ndax Bébé Diène tey bu ñëwee a xeex Baye Mandione Dione dina si génn ak Baye Mandione Dione li mu am ci relance ci moom. loolu di dara ci làmb xale bi gis ngeen ko ci mbappat yi muy bëreeg ñoo xam ne euh, ñoo ko ëpp wa waaye li ci am solo mooy dóore biir yàlla dënk na ko ko fit bi yàlla dé am na fit de. Euh, Bébé Diène ah xoolal combat yi mujj a bëre fit ba rëy na te bu dee bëre mën na bëre amul lu muy tëj ci Baye Mandione tey te bu arbitre sifflé dinañ xam ne amul lu muy tiit làmb nag moo demee noonu euh, victoire la défaite mais ñaan daal lu ñu ñaan tey yàlla may ñu ndam ñu yóbbu Médina ngir mil pour cent ngir Médina ngir Fass Colobane Gueule Tapée Fann ak Rebeuss. tey bu amee ndam fan la ko mën a dugal ci biir làmb tey. mais maa daan bàyyi ma njoon beneen beneen catégorie lay dugg parce que xam nga làmb làmb ñun ñëpp xam nañ làmb ni muy doxee saa yoo daanee nag yokk rawatina nag combat yi nga xam ne rawatina combat bi nga xam ne à l'unanimité xam nañ ne Bébé Diène su génnee ci baay ma Mandione tey ca kaw li jëm kenn mënatu ko bañ parce que dafa dafa bëre ci mbapat yi ba toj mbapat yi xam nga daan fourrière daan gaaku deux par par par point te boobu gis nañu la fa amoon yëpp moo ko def léegi nag tey confirmation la ñuy xool ban bébé jën la ñuy gis tey ban caractère la am tey nu muy bëree tey mais loolu si kanam incha allah dañ ko gis ma dellu siwaat rek di tàllal loxo suñu borom rek moo yor ndam yàlla nañu ma yàlla may ndam. ku naxari deret la ñuy bëre non xam naa ko su ma leen bëre nag ñaari yoon du naxari deret du ragal aussi bàyyi ma yoon naxari na deret du ragal boo ko wokkee mu xuri la loolu ñëpp xam nañ ko boo ko wokkee mu xuri la soo ko gëddee mu taxaw day xeex day bëre moo tax làmb tey ji daal amateur yi ko fekkeewul xam naa ne tardé nañ journée bu neex tey. Hmm. maman bi loo yëg ci xale bi. ah maman loo yëg ci xale bi. waaw li may yëg ci xale bi mooy que macha allah tout va bien ci làmb. tout va bien parce que mooy li may wax rek préparation dafa am solo ci ci làmb te man du ma leen may dara du ma boo fekkee entraînement yi nga xam dañ may dañ may seen sax di dañ may seen sax di daw di laaxatu ma ne yéen ñëpp gis naa acca rek parce que làmb yombul képp ku lay yombaloo làmb buggul buggul sa avancement dootul caaxaan foofu ay million la te millions yi kenn moomu ko millions yi kenn moomu ko da ngay góorgóorlu gëm sa bopp liggéey ànd ak say mbokk pour jëri millions yi teral sa bopp teral say waajur teral ku si boole moo tax man la ma xam loolu moo tax du ma leen nax entraînement seul le travail paie il faut travailler toujours travailler encore travailler jéem a dem ci kanam. kontaan naa ci yow papa. jërëjëfati.